ñaan loo nañ ko loo xam ne teg nañ ci seen bëri ba mooy dund léegi nag fi mu nekk nii moo gën a wóoluure fuuf fi mu newoon bi mooy dund te itam am na jëmm joo xam ne jarut tudd waaye nee na moom gént na gis ko mu ne ko suma barab bi lu fi nit ñaan mu nangu su ko defee nag loolu noonu képp ko xam ne yaa ngi toog fii dangay teewlu ci sa xol nit léeg-léeg la mooy bëgg yëpp yëpp làmmeñam mënu koy tudd waaye nga teewlu ci sa xol li nga xam ne bëgg nga ko li sa làmmiñ bi mën a tudd ak li mënta tudd yëpp nga mbëmbëstan ko yëpp yëpp yëpp jox ko yàlla yàlla moom xam na lépp mu defal la mboolem li nga bëgg ba nga gàppare ko fii ba teew lu xol rek la yàlla xam mboolem loo nam su ko defee yàlla moom ci mbaaxam ak tabeem nga mu mën na la koy defal su ko defee loolu moo taxoon may wax loolu waxuma ko ci kaw daanaka ci kaw mën naa wax ne ci yëqiin laa koy waxee yëqiin laa koy waxee ndax xabru yi moom dañu wax ne fiñ tok ni wala tawax bu mag bi waaye bëri na ci biit qabru bi qabru yi sax ño xamne so togon ci sen place bo fa ñane yalla na la ko nangul qabru yi yëpp sax mom mom ko yeboo rek ndax qabru bu xamne bi ni ñi ño fi teud yoy qabru mom dal na xel ko defé nak lolu te ñun fi ñuy ñane ni gën naa dalee xel ci ki ñuy ñane ci am bi ak njabotam ñi ngi dend ak ñoom ñu ngi tok lolu wax deug yalla gën dalal xel lu mo taxon may wax limay wax euh ñu xamé ko nonu ñun ñep ki ci xamna hand nga yow kenn def siyaare wala nga hand ak mbolo nga xamé ko non ta bayyi ci sa xel ndax mbir yep ci pass pass la ne. alaykum wa rahmatullah. bis bi. ñaar la lambo manam mu ngi melni dal ben saan boo xamna da ngay jëm ñaari picci moom la bis bi lambo wax bis bi këstu rajab lañ ko tuddee muy ñaar fukki fanak ak juróom-ñaar guddi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci rajab loolu mooy sëriñ bi gën a mag ci lislaam moom la ñu yónnent bi indiloon muy julli ci lañu ko jëlee woon nekkoon victoire boo xam ne ndam lu mag a mag la ñaal julli di beneen bi ci des mooy ay kaamil yoo xam ne dañoo baaxoon di ko jàng ci dëkk bi mag ñi ñoo ko fi saxaloon mu départoon ci xadat boo xam ne bii bëri wutoon xaddat boobu yàlla dogal li borom xam-xam yi da wax ne maa kaana lillaahi daama wa tasala wa maa kaana li xayrillaahi inqata wan fasala loo xam ne yàllaa ko tax a jóg daay avancé dem ca kanam waaye du xam tànki gannaaw léegi nag dem nañoo dem a dem ba fu ne fa tabaarakalla ay nangami téeméer junne kaamil sax li ñuy jàng léegi xëpp na ko te mu ngi départoon ci 313 ci première sa xàggutoon foofu ko defee bon ñaari yooyu noonu la bis la solo si bis bi làmboo ñu di ko defit ci weer bi nga xam ne ni weer wu màgg la woo xam ne mooy weeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam weer wi dañoo wax na ñetti xaraf moo composé weer yi muy rajab raa gi mooy tekki rahmatullahi baa gi mooy tekki birrullahi muy mbaax ak yàlla jiim gi mooy tekki jurmul abdi da bakkaaru jaam ñu ne yërmande yàlla nag ak mbaaxu yàlla bu ñu seqee bàkkaaru jaam yaakaar naa ne la ca xel da daj mooy ne effacé ko rek ko defee weer wi loolu la làmboo muy loo xam ne nii xoor ci hin na nga ne lu màgg a màgg a màgg la làmboo ko defee ndaw ku ndaay nañ ci bàyyi xel bu baax a baax bu dee benn fan it nañ nañ ko ci jéem a xoor waaye daal wàcc ko bam jeex daal te xooroo ci benn fan daal loolu moom wax dëgg yàlla bokkut ci li gën waaw bis bi daal noonu la demee. Mhm. dund góor gi moom léppam léppam dund na ko ci yàlla léppam ci yàlla la ko dund góor gi daal naka la xàmmee ko ci roni way juram fekk leen fa tabaarakallaahu ahsanal xaaliqiina ñu mat sëkk sëkk sëkk sëkk li doon mu màggee noonu noonu ci seen seeni ron mosta dem fenn mosta jaari fenn ci ñoom la nekk ba xëy da mag mbooleem lu mu jàng ci seen ron la ko jàng fa tabaarakallaahu yore seen tarbiya ba nag yore mbooleem aadaab yi nga xam ne nekkoon na ci ñoom dem ba xam ne fu ne fa tabaarakallaahu daanaka mën naa wax ne doon na na way jur yi hisan wa max naa ba fa tabarakallah dippile kataa la daal ci ñoom seen way ay woy juram nag ñu yéemee yéemee yéeme lañ woon ñoo xam ne ku dëkk ci réew mi te xam leen rek yéem nga leen waaye yaakaar naa ne mboolem lu ne newoon ci ñoom nit mën naa wax ne lépp mu ngi woon ci moom fa tabarakallah sunu xaalixin waaw ñoom jàngaleem xam-xamu fiq xam-xamu grammaire ñi ko wax naxwu xam-xamu mantiq ak balaaka yeb daf ko dan jangale hatta ba xarut sax daf ko dan jangale kon danaka man na wax ne mboolem fanni jangale ci rew mi yeb daf ko dan jangale fa tabarakallah waaw. lepp lu fi ñaan yéen ko nangu bepp xaaja bu fi nit andi yéen ko sama borom faj jangoro bu fi nit andi yéen ko xat-xat bu fi nit dikke yéen ko teggi ne yalla dëggal yaakar yi ne yalla yaakar yi ne ñu jëyee yàlla nangu leen nañ ci bokk fépp fu ko tàntaa yéen a ko yàlla gërëm fépp fu ñu ko ñaanee yéen a ko yàlla nangu képp ku dikk daal lépp la ko tax a dikk moo ko xam yéen a ko yàlla def yéen a ko yàlla defal ba defee ko lu kawe njortoom ñii jigéen yéen yàlla saxal leen si nekk may leen ne yi sax tabarkeel may leen njaboot kër yi yàlla leen kër jàpp na leen dund ko daay dëkk waaye war waay njaboot gu barkeel bu ñuy jàng yàlla hubbi leen yombal leen xam xam-xam bu ànd ak njëriñ xam-xam bu ànd barke xam-xam bu ànd ak jëfee xam-xam bu ragal yàlla ñi liggéey yàlla hubbi leen yombal leen xam dafa leen xam-xam bu ànd ak barke di jaay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bis yëpp am yaakaar waaye bii ci yi gën a yaakaar la bokk maanaam bis yëpp am yaakaar waaye bii na ci yëpp yaakaar la bokk julli dal ci bisitay bi la waccion julli mi dox suñu digënté xéeféer yi bi la waccion buñu bi da ko màggal nag rek mu doy sëkk waye bi tay bi la yonente bi sallallahu alayhi wasallam rañaane won makka dem ba fa ba fa soob yalla rek di la ñu ne sidratul muntaha fi nekk buñ ko tege ci loxol bay Ousmane Male mune ne nuyoo buñ ko tege ci loxol bay Ousmane ak El Hadj Moussa Dieng mii da géwélu Cheikh Tidiane. ak Baye El Hadj Moussa Dieng ñoom ñu teg ko ci loxol ñëpp. mu ne ñoom ñu teg ko ci loxol ñëpp. jataayu wax amul tey. mu ne jataayu wax amul tey. ñun fa luñ bëgg a wax. mu ne ñoom luñ bëgg a wax. programme boobu guddi lay doon incha allah programme boobu guddi lay doon jotaay bu mag ba ñuy def ci mbedd ma. mu ne jotaay bu mag bi nga xam ne moo leen def ci ëtt bi cérémonie officielle bi. booba bu àggee jàmm. boobu su àggee jàmm. ñun programme bañ am ci bis bi. waa daara ji programme bi ñu am ci bis bi. ñun boobu lañ ci doog a jëm. ñoom waa daara ji daara bi waaye ay taalibe bu ñu dajee ci barab. mu ne waaye ay taalibe bu ñu dajee te ak taalibe rek dajale leen. mu ne te ak taalibe rek dajale leen. bu ñaari baat yoo xam ne dana dëggal seen ak taalibe itam. ñaari baat yoo xam ne dana dëggal seen taalibe it. wax gi dafay gën noppee gi. wax gi dafay gën noppee ay nit bu ñu bàyyeekoo ci seen barab. mu ne ay nit bu dikk ci sa barab. dikk ci sa barab. rombu barab yu bari rombu barab yu bari ndax li ñi magal tay mu ne ndax li ñi magal tay ñu koy magal ci barab yu ba ci réew mi tey bari nañ lool ñu koy ci rew yu bari nañ lool ñen rombu barab yoy yep ñen rombu barab dikk le dikk fi si jaamal nit mënul dem fep nit mënul dem fep waye mënul ngeen dem ci barab yoy waye mënul ngeen dem ci yenen barab lu barab bi su ngeen tané barab bi nak su ngeen tané barab bi nak ñi ngeen fekk ci barab bi ñi ngeen fekk ci barab da fay war fay war fay yell hel da fay jaadu fay jaadu fay jak fay jak fay rafet fay rafet ñu wan leen ne gis nañ leen. ñu wan leen ne gis nañ leen. baat yi kon baatu gis nañ leen rek lay doon. kon baat yi gis nañ leen rek la. gannaaw bu ñu leen nuyoo. mu ne gannaaw bu ñu leen nuyoo. gannaaw bu ñu leen ziyaara. bu ñu leen ziyaara. gannaaw leen ndokkeelee. gannaaw bu ñu ci lu xam ne. ci lu xam ne. xam nañ ne ñun liñ ci dox. xam nañ ne ñun liñ ci dox. loolu rek ngeen ci dox. loolu rek ngeen ci dox. te wàllu tiyaaba. mu ne te ci a ñu ci ëppale sax. yéen yéen a ëppale. ndax yéen a sànq sànq seen temps. mu ne yéen yéen a sànq seen temps. ci ay coono seen yaram. génne seen i alal. génne seen i alal. ñëw ci ab barab. ñëw ci ab barab. ne dañ fay loo xam ne. ne dañ fay màggale loo xam ne. yow yàgg ki nga koy màggalat. yow yàgg ki nga koy màggalat. yéen a ci bokk yam. a ci nga xam ni ni nga jógee dikk. dikk moom noonu la waroon jóg dikk ci yow moom noonu la waroon dikk dikk ci yow wala boog ñu dajee ci benn barab wala boog ñu dajee ci benn barab su ngeen jógee nag kon dikk fii la mu ne kon nag su ngeen jógee dikk fii ñun ñi ngeen ñëw ñun ñi ngeen ñëwal ñu ngi leen wax ne gis nañ leen ñu ngi leen wax ne gis nañ leen kontaan nañ ci yéen kontaan nañ ci yéen ñu ngi ñaan ñu ngi ñaan lañ yaakaar lañ yaakaar ba dikk fii la di fi màggalee ba dikk fii la di fi màggalee ña ci yàlla defal xaas ña ci yàlla defal xaas ñun yal nañ ci bokk ñun yal nañ ci bokk allahumma amin ci mboolem réew mi yépp ci mboolem réew mi ci mboolem dëkk jullit yépp ci mboolem dëkk jullit yépp ak ci jaamal nag ak ci jaamal ci biir jamal way ci biir jamal dar diwaan gi ñu nek ñun dar diwaan gi ñu nek di dara ji di dara ji kep ku fi ñew magale ko fi kep ku fi ñew magale ko wala nga nuyoo fi wala nga nuyoo wala nga romb rek xol wala nga romb rek xol seen nga nit wala seenoo nit seen nga nit wala seenoo nit yeen nak bokk yeen nga bokk ci ñef yalla xassal yalla nga bokk ci ñëfi yàlla xaasal suñu ñane lool nak mu ne suñ ak xol bu sedd fay and ak xol bu sedd way day and ak xel mu dal day and ak xel mu dal man barab bi mune barab bi Allahumma <laughs> salli ala man bu ma am yaakaar la. mu ne moom bu man bu ma am yaakaar la. moom mu am yaakaar la moom sëriñ bi nee na barab bi dafay barab boo bu am yaakaar la. kenn ku nekk. mu ne kenn ku nekk. barab ba nekk. barab ba nga nekk. am nga fay am nga fay yaakaar lool. am nga fay yaakaar lool. yaakaar yooyu nga fay xaar. yaakaar yooyu nga fay xaar. waaye ji may xaar fii. waaye ji may xaar fii. tuuti wut de. tuuti wut de. waaw man yaakaar ji may xaar fii. mu ne yaakaar ji may xaar fii. dafa tuuti wut. dafa tuuti wut. te dama ciy yaakaar. te lim ciy yaakaar. dama ko yéene wul sama bopp rek. dama ko yéene wul boppam rek. waxuma ki fi ñëw de. mu ne waxul ku fi ñëw. ñu ne fi la dal. ñu ne fi la dal. waxuma ki fi ñëw de. wax waxul ku fi ñëw. ñee dafay nuyoo si. ñee dafay nuyoo si. waaye ki fi jaar ci seen. waaye ki fi jaar rek seen barab bi moo xam seen nit ni seenu nit. moo xam seen nit wala seenu li may yéene sama bopp man. ni moom li muy yéene boppam. moom la yéene waajur ko. lu waay bëgg na nga yéene suñ bopp suñ njaboot ku sori ku jege. ku teew ku teew bépp jullit. ne ñëpp xam ne loo waay bëgg yéenaal bu soobe yàlla. alhamdulilah. yooyu mooy ngir ragal fii. yooyu tamit ngir ragal fii. dama bëgg li may am. mu ne dama bëgg li muy am. ku fi jë ku fi jël am ko. ku fi jàll rek wala ku fi yéene rek am ko. ñu may bëgg di. mu ne bëgg di incha allah. incha allah bu ko defee ñu mot ko suñu programme. yàgg si yal ci jëlé ngërëmal yalla yalla nañ ci jëlé ngërëmal yalla yal ci jëlee defarug faw yal ci jëlee defarug faw ñëpp ñu bëgg di kenn yàlla indi leen ci jàmm ñu di indi ci jàmm nekk fi ci jamm delu ci jàmm ànd ak ngërëmal ngeureumal yalla nañ yalla xassal ñu ci yal na yàlla ñu ci barab bi yal na yàlla ñu ci bis bi xaasal ci wa barab bi xassal képp ku fi jaar jaay rasulillah rasulillah sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillah bismillah nekk leen mu ñaan amin yaa rabbi amin yaa rabbi amin yaa rabbi amin yaa rabbi amin yaa rabbi amin yaa rabbi kalaaw bañ miin ko xam ne fii mosuñ fee ñëw andi benn xaajo lu dul yàlla faj na ko tabaarakalaaw nga ñaanal leen yàlla gën leen fi yàggal dëgëral leen yokk seen man-man ak seen kattan ala kulli haal daal li ngi lay wax ne ñun waa Gàmbi baye ko paate ñaami na seen dëkk seen dëkkub soppe ñëw nañ jaamal siyaara si leen li wajillaahi taala ñëw nañ tabaarakalaaw andi xaajo yu bëree bëri nag and nañ itam ay xale yoo xam ne ñi nga ca daara ji di jàng seeni wuy jur andi leen fi bëgg ku leen ñaanal yàlla defal leen fatu ba ñu mën a wattu téereb yàlla bi subhaanahu wa taala ba leneen topp ca ak ñeneen ñi nga xam ne am nañ seen aajo yi bopp lépp daal yàlla subhaanahu wa taala xam na ko waaye bopp wax ji loolu rek la waaw incha allah ñëw nañ nag ziyaara la ndokkeel nañ la jébbal nañ la sunu xol jox nañ la lépp tabaarakallaahu ngir bis bi nga xam ne jaraloon na sa waajur lu ne jaral na sa maam lu nekk bisu al alquran la bisu sunna la fàggal ko jaami yàlla yi ngir ñu fàggoo ci hiiw bu ëllëgee bu ñu dajee ci yàlla subhaanahu wa taala mu ne àjjana ngi ni dugg leen loolu rek mooy sabab bi di jégalu nag ci kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu. man de maa ngi ñaan. ku de maa ngi ñaan waawa moo borom daru rilwaan waawa alaaji daam bor البداية رسول الله على جدام في الإمام على جدام Amen. Wax la bàyyi asama bàyyi. Wax la bàyyi asama. Thank you. آمن وقل الأمير آمن بجاه رسول الله صلي على خير البشر محمد مين يقوم دفن وقتا أمن وقل آمن بجاه رسول الله ànd ak parce que loolu mu ne ma tabaarakallahu ma nga gëm ñëpp ñëw fa tabarakallahu ànd ak sëriñ bu doon ñu xeeb ko lool nag di ñaan yàlla ak mu ne ñu gën koy mën ñu toog na bu ñu indi yàlla defal ko fajal ba mu xamal ko ko faju na ci sama bu gën na jaamal yàlla mën na loolu yàlla yàlla defal mu ne borom ko ma seetal bindoo ndax dañ xam ne boobu boobu la ko boobu lu mu bëri bëri ko koy jox mu ne ndax loolu nag mooy cër kuy jox waaye cër bi ñuy mooy li koy jox lu muy tuuti bu bëri moom lu bëri moom mu naw ko ndax jékki-jékki xel xel mu ne su fekkee bàyyi jënd lii ne diw laa bëgg ko jox waaye diw boobu nga bëgg ko jox am na kuréel bu gën a jege ci kër mën naa ne am na kuréel bu gën a jege ci bopp waaye nga bàyyi ko bu sori def ko sa bopp paas di yomb ba ci nit nga ñu di jox ko dana ko dana ko xel naa ko kii ko jox moom mu war a def sant rek gërëm rek ak ñaan mu yokk moo tax nag léegi nii nga ko ñaanal ma. mu ne ma ñaanal la ñaanal sama bopp la koo xam ne fu mu ne mënal la boo nee yaa koy ñaanal sa bopp ngay ñaanal mu ne li mu doon jëm nag loolu la ñu wax mu ne moo doon ñii moom loolu la mën a wax ci moom loolu mën a wax ci magam xetam di alaaj loolu la mën a wax ci ñëpp mu ne gis na ñëpp bu yeew mbay ba jaar ak njabootam jëpp ñoo leen càlle càlle ñeeg mbayal mbayal ñeeg moom ñun ñoo ñoo xamal ne andi nag bon la ñoom yéen mbay mbay muy sëñ Sakho Dieng mu ngi dëgg mu ngi ñu ngi ñu ngi sant ñëpp xibaar ngeen ñu mën a jox ci bés bi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi di nuyu di leen dalal di am contentement bu baax a baax si fekk si ngeen ñi fekk si fii. di leen wax ne rek euh, fii moom liñ fi mën a jox si ay xibaar bari na ndax yàlla daf ñu booleeg sëriñ boo xamante ni yombul si sëriñ yi mu man mu man si ñun lu ne nag te ñun mënuñ ci moom lu bari moo tax lépp lu ñuy def rek kontaan lañ koy defee ak mbégte fii moom comme ni ko gisee rek kër gi boo gisee rek da xam ne kër gi këru mbooloo la maanaam ñëpp fi daje képp koo xam ne ñëw na jaamal rek dana ñëw fii loolu kon euh, mayuk suñ boroom la goo xam ne yàlla jëlee na ko suñ sëriñ dañ ko ci sant bu baax a baax a baax a baax waañu moom gis nga góor ñeek jigéen ñi ñëpp waaw ku ñëw rek ci nga bokk parce que këru njaboot la moo tax waaw loolu daal waaw loolu moom suñ contentement mënuñ koo natt parce que Kazu Rajab bi yaakaar boo laajoon suñ grand yi nga xam ñoo ñu fi jiitu woon ñu si daara ji leen jaar fi leen jàngee ba ñibbi ba takku sax na ñibbi tout le temps euh, benn heure heure bu euh, programme ñëwee dañuy ñëw commencé wutoon nii yaakaar naa sëñ bi mi mu njëkk a commencé Kazu Rajab ay ginaar la commencé woon di peese ndawal dem yaa ngi ñu commencé rey xar di rey ay nag macha allah loolu mooy yokkute. ndax euh, mbirum yàlla lala mbirum yàlla amul tànk ginnaaw kanam rek la jëm te incha allah danañ dem ba àgg si gilem wala ba ay gilem gilem gilem. waaw fii si Darou Daane comme ni nga ko gisee nii taal leen fi juróom-benn mbana juróom-benn mbana moo fi nekkagum waaye nag reer bi mooy ëpp doole añ bi. parce que ñi nga xam ne si entourage bi leen dëkk nga xam ne sëriwuñ ñoom ngoon gi la ñuy ñëw moo tax kon reer bi mooy ëpp waaw nu daal moom lañ ci doon wax El Hadj Mor wax. waa kay jërë ngeen aman de maa ngi ñaan ku sopp xaaji daam defal ma nii alaaji daaman de maa ngi ñaan moo da borom daaru rilwaan alaaji daam bo Yeah.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 أشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول واستعينه واستغفره واستهديه وأؤمن به ولا أكفر واعادي من يكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسول أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم ودلالة من الناس وانقطاع من السمان ودنو من الساعة وقرب من الأجل من يطع الله ورسوله فقد ومن يحصيهما فقد قوى وفرر ودل ضلالا بعيدا وأوصيكم بتقوى الله فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم ثم أن يهود على الآخر وأن يأمره بتقوى الله فاخسروا ما حصركم الله من نفسه ولا أبدل من ذلك نسيهة ولا أبدل من ذلك ذكرا وأن تقوى الله لمن عمل به على وجل ومخافة من ربه أو نصدق على ما تبقون من أمر الآخرة ومن يصلح الذي بينه وبين الله من أمره في السر والعلانية لا ينوي بذلك إلى وجه الله يكن له سكرا في عاجل أمره وسغرا فيما بعد الموت هنا يفتخر المرء إلى ما قدم وما كان من سوى ذلك يود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا ويحسركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد والذي صدق قوله وأنجز وعده لا خلف لسالك فإنه يقول عز وجل ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد اتقوا الله في عاجل أمركم وعاجل في السر والعلانية فإنه من يتق الله يكفر عن شاته ويسم له أجرا ومن يتق الله فقد فاز فوزا هسيما أن تقوى الله يوقي مقته ويوقي سقطه وأن تقوى الله يبيد وجهه ويرد ربه ويرفع درجة خذوا بحثكم ولا تفرطوا في جنب الله قد علمكم الله كتابه ونهج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاسبين أحسنوا كما أرسلنا الله إليكم وعادوا أهداءه وجاهدوا في الله حق جهاده ويتبعوا وسماكم المسلمين ليهلك من هلك عن بينة ويهي من حي عن بينة ولا قوة إلا بالله عباد الله فأكسروا سكر الله عباد الله فأكسروا سكر الله وعملوا لما بعد اليوم فإنه من يصلح ما بينه وبين الله يكفيه الله ما بينه وبين الناس ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه ويملكون من الناس ولا يملكون منه الله أكبر ولا قوة إلا بالله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقواه في سريرتكم وعلانيتكم وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولا تكونوا مثل قوم كانوا في سفينة فأقبل أحدهم على موضع يقرق فنظر إليه أصحابه فمنعه وقال هو موضع ولي أن أحكم فيه فإن أخذوا على يده سلم وسلموا وإن تركوا هلكه وهلكوا معه وهذا مثل ضربته لكم رحمنا الله وإياكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين تغواي جيك سو صفوفكم فان تسويه الصفوف من كمال الصلاه او من اقام الدين بروايه اخرى بروايه اخرى مثل الذين هم التوراة ثم لم يحملوها كمثل نمر يحمل أسفارا بيس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ولا ولا يدقهم الظالمين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 وسمت وضوهاها والقمر إذا تلاها والنهر إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما تاها ونفس وما سواها فألامها فجورها وتقواها قد أبلى من سكاها وقد خاب من دساها كذب الشمور بتقواها إن بعث أسقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فلمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها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 الله أكبر الله أكبر <coughs> السلام عليكم السلام عليكم الناس لا الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الناس من الجنة والناس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 صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وان نرى ذلك من الشاهدين وبهم ومن ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلوات الله وسلامه وتهياته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبده ونبيه ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه عدد السماء والوتر والكلمات ربنا التامات المباركات ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها والله لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المعين العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار القهار الوهاب الرزاق الفتاة العليم القابل الباسط القابل الرافع المعز المسل السميع البزير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم العليم العظيم القفور الذكور العلي الكبير الحبيث المقيت الهديب الجليل الكريم الرقيب المجيب البعث والحكيم الودود المجيب البعث والحكيم الودود المجيد الباعث السيد الحق الوكيل الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعاد المهي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الزاهر الباطن الوالد المتعالي البر البر التواب المنتقم العبور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقدس الجامع الخني والمعنى المعنى والار النابع والنور الهادي البديع والباخر الوالد الرشيد الصبور ولا اله الا هو فدهم والسنه الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا قدم القران وتجاوز عنها ما كان في تناوله من السهو والنسيان أو تهريب كلمة أو مواليها أو تغيير عرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تغيير غير ما أنزلته أو ريب أو زك أو تعجيل عند تلاوته أو كسر أو صنعة أو سيخ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إلقام بغير ملقم أو إذهال بغير بيان أو مد أو تسديد أو همسة أو جزم أو إنراب بغير مكان واكتبه منا على التمام والكمال والمعتب من كل الأذهان واكتبه منا على التمام والكمال والمعتب من كل الأذهان واكتبه منا على التمام والكمال والمعتب من كل الأذهان واقبل لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فلما مؤديا نقه مع الأعداء والقلب واللسان وهب لنا بالخير والسعادة والبزارة والأمان ولا تغفر بالسر والسقاوة واللذاذ والطغيان والنبي قول المنايا عنا من قبل دول الكسلان أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل ديدان وبيض وجوهنا يوم ما رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر هزابنا ودخل ميزاننا بلادنا وزر اقدامنا على سياد الكناب وزت الجنان وزقنا جوال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام واكرمنا بلقائك يا ديان استجب لنا بحق التوراه والانجيل والسبور والفرقان استجب دعاءنا بحق التوحيد والإنجيل والسبول والفرقان استجب دعاءنا بحق التوحيد والإنجيل والسبول والفرقان أدنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وسيدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب السلام والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين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 وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بقرحة القرآن وعفنا من كل بلاء الدنيا وعلى الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن ولم جميع أمة سيدنا محمد بآخر القرآن فلم دمع أمة سيدنا محمد باقي القرآن فلم دمع أمة سيدنا محمد باقي القرآن اللهم اجعل القرآن لا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة سبحا وعلى سيئات نورا وإلى الجنة سبقا وبيننا وبين النار سترا وهجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما فلك وجودك وكلمك يا أكرم الأكرمين اللهم هدنا بهداية القرآن وعافنا بهناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بسفاحة القرآن وارفع درجاتنا بفليلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان ولما زقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء اللهم ارزقنا بالالف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخاء قلانا وبالدال دنوا وبالساء زكاء براي سنا براء رحمة وبساء سلبة وبسين سناء وبسين سفاء وبساء سفقا وبساء ضياء وبساء تراوة وبساء سفرا وبالعين علما وبالخين قناعا وبالفاء فلاحا وبالقاف خلبة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم مؤنسا النورا نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا صلى الله على سيدنا محمد وعليه تعالينا أجمعين لما بلغ ثواب ما قلناه ونرمط لونه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام العذاب ولا رأي عذابه رضي الله عنهم أجمعين وعلى رأي جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين ولا رأي آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا وجميع موتانا وجميع عذابهم خاصة ولا رأي جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمؤمنين والمؤمنين عامة ولا جميع صاحب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات ولا من سلم نصر الدين واقتل من قتل المسلمين آمين يا رب العالمين بأمدك يا أرحم الراحمين لمن تلمن ناصر الدين واهدل مقصد المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين لمن تلمن ناصر الدين واهدل مقصد المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين لمن حبيبك وأبناء حبيبك وأبناء إمائك ناجيتك ناجيتنا بيتك ما فينا حكمك عدل فينا خلاؤك نسألك بكل إذن هو لك سميت به نفسك أو أنزلت في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقمومنا وسائقنا وقائدنا إليك ولا جناتك جنات النعيم وذلك دار السلام الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والسعداء والسعيدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم حبب ما تبعا هدى اماما ورمدا وارزقنا تلاوته وعلى النبي الذي يرضيك عنا ولا تنعم لنا سما الا خبرته ولا عما الا فرجته ولا دينا الا خليته ولا مالا الا دفيته ولا عدوا الا كفيته ولا خائبا الا رددته ولا عاسيا الا عزمته ولا فاسدا الا اصلحته ولا ميتا الا رحمته ولا عيبا الا سترته ولا عاجلا الا ان يسالته ولا عيس منه اي الدنيا والاخره لك فيها لن ولنا فيها سلام الا انتنا على اخلاقها في منك وعافيه يا ارحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم هل جمعنا جمعا مباركا مرحوما وهل تفرقنا حميدا تفرقا سالما معصوما ولا تنال فينا ولا منا ولا معنا تقيا ولا مهروما اللهم هل جمعنا جمعا مباركا مرحوما وهل تفرقنا حميدا تفرقا سالما معصوما ولا تنال فينا ولا منا ولا معنا تقيا ولا مهروما اللهم هل جمعنا جمعا مباركا مرحوما وهل تفرقنا حميدا تفرقا سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا سقينا ولا محروما ولا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ همنا ولا إلى النار مسيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ربنا سلمنا أن أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من القادرين فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من القادرين فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من القادرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب بناصية جماعة دفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الفاتحة